assemblée nationale la fa nekk man PDS laa ciy ŋaaññi parce que PDS laa jàpp ni fa ñu waroon a yëngoo wala ñu def farata dañoo deful woon farata ba Ablaye Wade bëggee teg doomam foofa la ñu waroon a lànk bon du ñu ñàkk nguur gi mais dañoo bàyyi Ablaye Wade mu bëgg a teg doomam ñu ànd ak moom ba ñàkk nguur gi léegi nag Ablaye màggat na jom jaa ngi ci kaso bi jaaxle nañu Macky Sall jël na pouvoir bi mu bett leen te ngi dox yoon woo xam ni ku ko bàyyi mu gën leen a réeral xam loolu moo waral li ñuy def il font du sabotage mais ça ne marchera pas parce que les Sénégalais sont les premiers à comprendre que il ne reste plus rien dans le PDS il y a que les Fada et autres raison qui savent que le PDS doit se refonder mais ils n'ont pas le courage d'aller jusqu'au parce que tu ne peux pas vouloir réformer le PDS et demander à ce que Karim Wade soit votre candidat. Un prisonnier ne peut être un candidat, encore moins un monsieur qui n'a pas toutes les caractéristiques qu'il faut pour prétendre diriger le Sénégal. xew-xew bi xew-xewu la mais de lu man mii di wax ak yéen yàgg ci football stade bi ñuy fubale fubal naa fi ba ci bis yu mel nii. dafa tolloog léegi man je suis devenu le maire ça c'est la deuxième édition de la coupe du maire et la deuxième est aussi bonne et aussi belle que la première bu soobee yàlla comme vous pouvez vous en rendre compte vous aurez droit à une excellente finale la finale est en train de se passer comme il le faut l'équipe de Khombole vient de marquer un deuxième but ce qui relance le match à à 1. Euh, le voir, c'est une finale très intéressante, très populaire. On souhaite que le meilleur gagne.